fas yéenee jàppale Xaadim Taal mii ndax jàppale Xaadim Taal mooy jàppale Karim Meïssa Wade kuréel gu bees sàq si union des karimistes du département de Mbacké yi doon amal seen installation si Touba ma waral kàngam yépp teewoon ngir nag jàppale kii nu jàpp ni doon na jàmbaar fakk tëdd si waar wi di xeex ngir jàppale Karim Wade koke di Khadim Tall loolee waral vice présidente bi di Maram Mbaye ak le président du mouvement Khadimis Karimis Abdoulaye Diokhane fësal ko ñu gis Khadim xam nga ñu fas ne ànd ak moom jàppale ko di wax ne bis naka tey nag jàpp leen ne Xaadim Taal am na ay yaay faal waaye am na ay baay faal. Euh, liggéeyal Karim nag euh, buñ koy def gis Xaadim mu nekk benn acteur boo xam ne day liggéey lu am solo ci département bi ñu jaarale ko ci moom moo waral Karimis Xaadimis. waaye nag mouvement bu bees bii di xadimis karimis biñ ko sosee seen premier objectif mooy xeex injustice ci wàllu candidature yi ba moo waral nu jàjju ne sax nag jaral na leen lu nekk ñoom mouvement bii di xadimis karimis ki nga xamante ni moom mooy coordonnateur bi di xadim kayra yëkkati dënnam kon nag jàmm ji bu ko bëggee dina bàyyi kandidaa yi nga xamante ni Sénégal yi dañ koo tànn bàyyi candidat yi dem ndax ñun suñu candidat Karim Meïssa Wade képp ku bëgg jàmm ñu ko bàyyi mu jàll képp koo xam ne da bëgg leneen boo ko téye suñ bakkeen yi dañ ko see teg kon nag jàmm ji ji moom moo ko yor. mouvement bi nu jël nag honoré ko Khadim Tall mi nga xamante ni mooy le cordinateur de l'union départementale des karimistes de Mbacké moom mi président d'honneur bi Khadim Tall soñuwaat na tur bi nekkat argument yu valide te wóor lañu am ñoom karimistes yi na xil xalawuñu seen bokk candidat ci élection yi moo waral ñu gis ni Macky mi nu jàkkaar na sëgg bari ñun sikki sàkk wuñ suñu candidat dafay jàll. li tax ma wax ko biñ duggee ci parrainage bi dañ ne woon seen fiche yi du ngeen ko déposé ñu dem déposé fiche yi validé nañ ko. beneen bi ci topp Aly Ngouille Ndiaye dem na assemblée nationale ñu wax mu ne Karim Meïssa Wade binduwul deltuwaat na ca ginnaaw nee na Karim Meïssa Wade defaral nañ ko carte ba jox ko ko. kon nañ teg Aly Ngouille njaay ci télé bi ne ko wax yooyu nga waxoon deltu ci ginnaaw lan moo ko waral ndax toog na ne Karim Meïssa Wade binduwul te Karim Meïssa Wade ñëpp gis nañ ko mu jóge Qatar dem ba Kuwait bindu ñu defal ko récépissé comme sénégalais yëpp te ministre de l'intérieur mënul génne Karim Meïssa ci fichier électoral bi ndax ñoo ci bokk yem kon dañuy xamal Macky Sall ne ko Karim day bokk moom mu bokk su nee Karim du bokk moom Macky Sall du bokk. Karim day bokk Bala Fosu day bokk. Karim day bokk mu yemook jamono ji nga xamante ni union départementale des karimistes de Mbacké nemmeeku nanu ni am na ay départ loole nag Khadim Tall mi président d'honneur bi da ko soofantal gis ni ñoom fa nu nekkoon ñoo nga fa ndax ñoom ay karimistes de conviction lañu waaye nag jàpp nanu ni mouvement bu ni mel dina gën a renforcer joxaat espoir karimistes yi ba nu gën a mën a àggale seen yéene bu nu sukkandikoo ba tey ci ñenn ñu bokk ci kuréel gu ni mel.